enjeux yu baaxul ci démocratie Sénégal yow lan ngay wax ko France gële la fa nekk moo raw li nekk fii pourquoi loolu war ñu poser problème ñun demal Amérique la fa nekk nag hmm. dem nañ dugg seen assemblée nit ñi reyante fa lu tax ñun Sénégal bu ñu taalee pneu sax ñu yuuxu comme si c'est la fin du monde àdduna hmm. moo mel noonu parce que àdduna moo changé doxalin yi changé euh, jumtukaay yi changé réseaux sociaux yi dugg jafe-jafe yi bare donc mm-hmm. violence bi tam bare mm-hmm. donc loolu bu amee ala kulyaa leen ki nga xam ne moom rôle am mooy fexe ba réew mi jàmm di si dox day dox kem kàttanam ngir débordement bañ a am loolu la ñuy wax toujours rek la gestion de l'ordre public mm-hmm. bu fekkee nag nit ki wala boog situation bi ñuy jànkonteel gis nañ ne bu ñu ko bàyyee mu dem dina indi fitna wala boog bu ñuy réagir la muy indi si yàq moo raw dañu anticiper loolu c'est le principe de précaution mais loolu waa police waa gendarmerie seen liggéey la du liggéey président de la république ah. donc ñoom ay homme de loi lañu ñoom seen mission mooy ñu xool chaque situation nan lañ ci war a taxawee te dañ ko jàng seen responsabilité la dañ leen di fay ngir loolu loolu mooy seen liggéey li nga nekkee journaliste tey di ma interroger li ah. ma nekkee président la di doxal ñoom loolu mooy seen métier ni juge bi nekkee fële di àtte donc kenn ku ne ak lay sa wareef mhm. euh, kenn ku ne bu doxalee wareefam yaakaar naa ne coow du am maintenant excellence ci démocratie lañ nag il faut que opposition bi dérouler comme yow ni ngay dérouler ak say ñooñ waa Benno Bokk Yaakaar yaa ngi waajal dem Kédougou euh, sous la forme de d'une visite de travail ñoom souvent ils disent oui da nga ciy raxaale ay campagne ak yooyu ñoom it il faut que ñuy kay dañuy. mais bu ñu leen joxoon jaay rek ñu tere seen i marche. déedéet déedéet déedéet kenn du tere marche xam nga marche pacifique kenn du ko tere amul sens su doon marche pacifique la. Mhm. doo mos a dégg benn préfet wala autorité administrative di ko tere amul benn sens. mais bu fekkee marche bi yaa ngi def ay butéelu essence ñu tuddee ko cocktail molotov. Mhm. yaa ngi taal yaa ngi yaa ngi yàq. Ah. mais duñ la bàyyi nga yàq réew mi quand loolu mooy problème bi mais bu fekkee marche pacifique la kay nit nii mën nañu dox ba saa yu leen neexee loolu lu baax la sax ci wér-gu-yaram amul benn problème <laughs> te ñun amuñ ci problème léegi nag man li may defi Kédougou defuma politique man su ma demee Kédougou par exemple c'est pour inaugurer ji la ma fa def ak lancer ay projet yu bees mm-hmm. maintenant nag mën naa comprendre ñoom fu naa jógee ñu ne day campagne